asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan ñu amati mbégte ak contentement bu mag encore une fois di janoog yéen ci seen émission bu mag bi nga xamante ni daan ngeen ko gëj a gis waaye ñëwaat na mu ngi de retour muy cloche alors cloche nag wax naa leen ko émission la boo xamante ni guddul mais nag dañuy seeti ki nga xamante ni wax dëgg yàlla toujours dafa jara dem ñu seeti ji ko ndax am na li nga xamante ni mooy mu à dire euh, kii ñu ñëw nag seet si tey mooy doomu ndey Waly Balago Seck doomu ndey Youssou Dieng euh, wax dëgg yàlla nag di gawloo doon ko ci euh, li nga xamante ni mooy ndey doon ko ci mbokk doon ko ci famille wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee seet si ko sax seet si nañ ko xamante ni doo jar na doon na ku ñu jara seet si wax dëgg yàlla muy lamin naar gawloo tey moom laa seet fii ci cité Alioune saw ata Lamine nuyu naa la caat maa ngi lay fay. ah sama dig baax na. Ah, tuddee naa la ko. <laughs> fay di la siyaar. Uh-huh. di nuyu Sénégal. Uh-huh. di nuyu monde entier. Uh-huh. di nuyu képp ki nga xam ni mooy seetaan Sénégal 7. di nga xam ni ñoom dëgg rek la ñuy wane. dëgg rek la def. waaw di siyaar suma sëriñ Alaaji Baara Mbàkke di ko ñaanal yàlla yokki leeram taas ñu ci barkeem. di ñaanal suma yaay ajaratu nday mari njaay gawlo fi mu tëdd yàlla ko gënal fi mu jóge yàlla na ko suñu borom xaare àjjanay si ci barke Serigne Bamba barke Seora Fall mu yaakaar di ñaanal sëriñam Cheikh Mbacke Fall yàlla tamit yokki ay leeram di nuyu sama famille di siyaar Sénégal gépp di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ku ko xool rek xam ne wax dëgg yàlla kon yar la man euh, il fait partie des musiciens yoo xamante ni kenn du leen dégg ci yenn yu bari wax dëgg yàlla ñu ci bari sax tax na euh, nee nañ euh, Lamine doon na koo xamante ni kenn mësu koo gis ci dara kenn mësu koo dégg ci dara mu nekk particularité boo xamante ni c'est pas du parce que ci li nga nekk daa ànd ak coow constance bi la ko indi. waa xam nga yàlla dafa dogal ni man boo juddoo ci famille boo xam ni euh, famille bu am tur la ñu xam nu ba pare sama yaay yar ma nag wax dëgg yàlla moom daf ma yar ci fulla ak fayda ak personnalité ak jom ak bañ dugg ci daray ñàkk fayda daray manqué ndax moom daf mën wax man sa ndey de kenn mësul bind ne ne la Ndeye Marie Ndiaye Gawlo def ak la la la mari Marie Gawlo wax yow ngay sama doom di sama taaw kon dama lay ñaan rek bul tux cigarette bul naan sàngara bul wax waxu jàmbur bul dugg loo xam ni ëllëg dañ naan doomu Ndeye mari Ndiaye Gawlo loolu mu waxoon ba léegi nag ci lay dox di ko sàmm ba pare nekk nekk suñu kër aselem am ay mag yoo xam ni dañoo sévéroon trop bi ñu nekkee xale dañu yar mosuñu noo nangu ñuy def ñuy fanaan àll wala ñuy def naka sudul noonu loolu xam nga boo ci yaroo juddu ci am mag joo xam dafa tàng boo mësaan génn timis bu jotee sax bu la fekkee ci mbedd mi waaw dalay indil problème muy Habib abi Mbengue mu sëñ Babacar yar ñu nag def ci ñun fulla jàngal ñu tëgg defal ñu lépp ak sama mag yi nga xam ñoom ñëpp dañ ma dañ doon veey ci man quoi man bu baax parce que Serigne dañ doon veey ci man moo waral tey lépp lu may def rek su ma xalaatee fi ma jaar rek ak la ma sama yaay daan wax ak samay mag ci yoon yu ma tegoon moo waral du ma dëngal du ma def dara damay topp ci yoon wu baax bi rek. ak ça c'est cool donc euh, wane nga ko rek parce que nag ñu ci bari sax dañ daan wax est-ce que timidité bi nga xamante ni yenn saa yi dañ koy gis ci moom ànd na ak li nga xamante ni moom lay def muy percussion yi wax dëgg yàlla <laughs> yenn saa yi nag daa mel ne boo nekkee ci <laughs> ci chaîne bi day mel ne kese gi da lay réer gaaw la. waaw noonu la xam nga artiste moom nit da nga war a am téeméeri facette bi nga xam ni ci kër gi la yam bi nga xam ni ci mbedd mi la yam bi nga xam ni ci kaw scène bi. parce que nee nañ artiste da ngay aar ba pare di tiis ñi nga nekkal yow ñi lay seetaan si tey bu ñu dugg see rek war nañoo gis yow loo xam ne bu ñu gis bu ñu la xoolee avant tout dañ la war a enjoy dañ war a parce que li ngay def yow yaa ko war a njëkk bëgg yow yaa ko war a njëkk a man moo tax lu ma am kersa kerse bu ma nekkee ci kaw seen bi beneen Lamine Naar laay nekk. moo waral am na ñu bari sax dañ ma naan Lamine Naar mi est-ce que du tux wala du naan parce que boo boo gisee buy dox day sëgg. day complexe mais bu yéegee ci kaw seen bi waaw parce que artiste moom boo boo boo nekkee ci kaw seen bi waneel ni artiste nga boo wàccee ci kaw seen bi nag doonal Baye Fall maasek ñëpp mais ci kaw seen bi moom chaque jour dee ko yëngal muy yëngu di neex ndax say fan si yi lay seetaan di mën a bég ba tey ñu xaw a desandi tuuti ci li nga xamante ni mooy kersa bi nit ñi di am ba tax parfois ñu koy camoufler ki yenn yi nga fi jotalim sànq tux mbaa naan euh, est-ce que d'accord nga ci ñi nga xamante ni nee nañ boo complexé boo utiliser yooyu da ngay nekk beneen nit. ñooñu ay seer lañ ñi koy def ay seer lañ ñun bi ñu nekkee xale taxaw nañ seen bu ne ci àdduna sunu papa du Ndiaye Ross ñu koy ñaanal moom it yàlla xaare ko àjjana ak bépp baj géwal bu fi nekkoon Alaaji Balla Naar Mbeng weesam ma Cheikh ma Ndiaye mais Doudou Ndiaye Rose moom dafa nekk nit ku spécial ndax bi ñu nekkee xale yi tuuti fu ne la ñu yóbbu bi ñuy yóbbu amuñu sax ay dix dem nañ fu ne ci àddina ndax moom di ko ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi yàlla sàmm leen sàmm mbooloo mu jullit loolu man du Ndiaye Rose fu ne taxaw na fa danaan taxaw di wax naan moom mësul tux ci àddinaam mësul tux cigarette te te bu bu bu weesoo bu tëggul deful dara boo leen tëgg boo leen toogee du siggi xool nit waali day nekk ci kaw seen bi bu te waali boo leen boo leen gisee nitu kersa la xam dara du naan sàngara du def dara lu bon ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñi koy def ñoo ñu ay complexe lañ rek loolu laa leen mën a tuddee ak ak uh, ñàkk gëm seen bopp mais nit ki moom lépp looy yëngu nga mën ko mu nekk ci yow boo yéegee ci kaw seen bi xolal bul keer na ba maay defal defal luy bégal say fan sa après boo paree nekkal ci leneen. nga amoon nag ñoo xamante ni da nga leen daan bégal toog di ci ci chaîne yi boo yéegee ci kaw di def show di yéeg di ci di indi ambiance mais loolu dañ koo gëj a gis tuuti lu waral loolu. waaw xam nga yàlla dafa dogal nag des fois euh, bu ñu tukkee suñu benn tukki la woon bi ñu demee Amérique fecckat demul woon fecckat demul woon ma xam ni artiste moom da nga war a nekk polyvalent. parce que man bi ma nekkee bala may sa mu jàngal ma tëgg ma koy ñaanal moom it yàlla xaare ko àjjana parce que man ñi ma jàngal tëgg ki ma jàngal tëgg jéem def ci man bu may tëgg mel ni waaw mooy loolu. muy may sa cubb ma koy ñaanal moom it yàlla xaare ko àjjana firdawsi moom boo ma nekk ci man bu ma bi ma nekkee ci baleem nekk xale 89 bi ma njëkkee ñëw daf ma xool dama yow da nga war a fecc ma fecc di jàng fecc di jàng fecc man ak riche. riche ñaa après bi ñu nekkee bale jàll fële faas bu fecckat yi mosul ñëw rek bu nu mësaan tàdda jàll day riche Lamine Naar si meeku leen ngeen fecc ñu commencé di fecc benn jour am ku waroon tëgg benn pa xam bu ma nekkee xal dama yàgg sob nag dama daan déglu kooku war a def benn partition ci jémbe yi ñëwul ñu ko raw ndeysaan góor ak sàmmanaar ñëwul rek ma jël kii bi jémbe bi tëgg affaire bi neex may sa na ma bis ni ki tey nag fecc da ngay tëgg ñu dem Amérique nag fecckat yi demuñu woon ma xool seen bi yenn saay day jékki-jékki wéet ma xam ni Waly ndeysaan jàmbaar la day fecc day fecc di bëgg koo booleeg way ma jékki-jékki rek sol caay ju mag rek sànni mbaraakis yi rek naaw mais bi ma ñëwee nag mu am ma non gaaw la li ñu doon def Amérique il faut ñu def ko mën a ko déet yàlla dogal na ni daan may na la ay fecckat yu mën a fecc ñett lañ macha allah dañoo ñëwul woon rek mais loolu daa sax sénégalais yenn saa du ci ñàkk nga ca waxal. waaw waaw waaw waaw dëgg la mais xam yenn saay xam rek ak waa da ngay xaw a mënoo boole tëgg meeg jékki-jékki bëri xaalis moo tax attanatu ko <laughs> aja ba tey ñu daal di gën a ñëw nag ci percussion percussion bi nga xamante ni yéen a ngi koy def eh, yéen nag ñu gën leen a xamee ci seen métier percussionniste eh, jamono ji nag métier bi fu mu toll est-ce que dëgg-dëgg développement bi mu war a am réussite bi mu war a am mi ngi mi ngi am yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi koy def. waaw sant yàlla sant yàlla bu baax waaw ñu ngi ciy gis suñu bopp ndax amaana tey buñ ci gisul woon suñu bopp am nañu man Europe laa dëkkoon euh, dëkk naa fa vingt deux ans falaa màggee falaa yaroo amoon am fa lu ne nag wax dëgg yàlla amaana tey fii ñu nekk tey bu ma fi gisul woon tey li nga xam ni yëg naa ci sama bopp kon suba damay daggaat sama biir dem Europe yeggali sama liggéey mais macha allah fi ñu nekk nii ñu ngi sant bu baax a baax a baax ñu ngi sant bu wér waaw ñu ngi ciy gis suñu bopp di ko yëg. d'accord euh, Europe googu noonu lan yàlla dafa defoon man bi ma nekkee Hollande laa njëkk nekk dëkk naa fa 12 ans daan fa joxe cours nekkoon ci école de musique di jàngale tëgg li ma fa nekk lépp mësuma liggéey beneen lu weesu tëgg cours laa fa doon joxe di jàngale ay nasaraan tëgg am samay frères yu nekkoon foofu ku ci mel ni Ali Ndiaye Rose bu ma saan am concert yóbbu nu bokkee seen bu ma am concert yóbbu nu ñoom As Baba Mbeng suma frère ak benn fecckat bu fa nekkoon bu ñuy papp Pape Assane Sow rakku laay rakku Issa Sow ak ñoom laay jàlloo gaa yi foofu yëpp ba ba Xurandingan benn dëkk bu tudd Xurandingan ñoom Moussa Paate bi daan tëggal coon Pape Seck bu bu nu masaan am concert dañuy woo ñun ñëpp ñu ñëw jàpp ci may jàngale tëgg foofu amoon ay école amoon foofu ay école de musique des fois may am ay stage di indi ay tubaab Sénégal chaque décembre dama daan indi ay lu mat trente tubaab ay quinze di leen indi fii di leen wan culture Sénégal di leen jàngal tëgg waaw yàlla def nag depuis sama yaay bi mu gaañoo nag amatuma envie toog continuer loolu parce que dama fi waaw sama rakk mu ngi fii sama rakk bu jigéen ak sama soxna samay doom moo tax daal Europe moo fa demee. joué ji concert ziar famille bi nekk foofu ñibbisiwaat. ñu ci bari nag ci ñenn musiciens yi di ñaxtu euh, bu dul sa group groupe keneen ak keneen ak keneen fii Sénégal ndax ñu ngi xam ne ñoom la majeure partie du travail ñoom ñoo koy def ndax ki nga xamante ni mooy waaye day juste day doot jottali composition yi ngeen jot a def est-ce que loolu dal na leen biir Faramareen. non non foofu moom Faramareen c'est la Raam daan la Faramareen mooy. staff bi nga xam ni ñoo yor wàllu matériel bi yor euh, li nga xam ni waaw mais biir daan moom ñu ñëpp ay famille lañ waaw waali yàlla dafa dogal na Thione Seck mooy sunu njiit ndax ginnaaw yàlla lépp moom la moo ñu tette dalal ñu baa dem ba amatul jot nekk ci yenn bagage am jël doomam samp ne léegi bët bi ngeen may xoolee dee leen ko xoolee sama doom yàlla dogal ni ñu am tamit waali mu nekk suñu rakk jiit wanewul ni man maay seen jiit parce que Serigne Bara mosu doxe moom à chaque fois rek gars yi fii bari na ci ay waykat yoo xam bu ñuy way boo leen fekkee studio amoo fit sax ñuy way nga naa noonu li ngay way bul wayee nii bul defee nii te ñun waali chaque jour te am na xam-xamu bind am na xam-xamu xalaat ndax lépp lu muy def moo koy xalaatal boppam moo koy bindal boppam mais macha allah bu defee dara boo ko ne saa man sentiruma li danaan ah noo ko sentiree nga a ok nañ ko jëlee nii moo waral macha allah lu mu génnee rek suñu borom def ci jàmm ndax day déglu ñëpp lay déglu te xelu ñëpp lay demee alors kon macha allah yàlla na ci yàlla gën a def jàmm. Euh, ba tax na sax nag suñu juumul defoon nga fi benn sortie xam le ne ci Wally kese nga gis ne euh, bokk na ci artistes yoo xamante ne dangay dem këram toog waxtaan ba dem te doo dégg mu tur tudd benn turu artiste. waaw wax dëgg yàlla loolu moom dama koy seede saa su ne ba bu ñuy répété sax ñu def benn affaire ñu ne lii non kii wayoon danaan carrément. man bëgguma ñuy tudd kenn bëgguma ñuy wax kenn parce que fii lu fi nit def rek nit defoon na ko ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi day sentir wayu nit sax Wally ñaata yoon la fi woy wayu Youssou Ndour bari na ñaata yoon la fi woy wayu Pape Diouf bari na ñaata yoon la fi woy wayu keneen ak keneen bari na parce que day wane ni moom à chaque fois rek xolam bi ñëpp la ci dugal ñëpp la ci yaatal loolu moom mën naa ko seede mosuma toog këram mu tudd turu nit wala ngeen toog di waxtaan sax mu tudd turu loolu moom ba sama bàmmeel dama ko koy seedeel. am solo euh, macha allah bokk na ci ay kàddu yoo xamante ni ci xol la jógee boo ko déggee sax euh, mu jël ko jëmale ko ko ci nga xamante nii nag mooy frère am Wally Seck euh, mais tey ñu gën a desaat ci li nga xamante ni mooy liggéey bi da ngeen di waajal lu rëy nag le 27 incha allah. waaw yàlla dogal ni la le 27 boobu noonu Wally dafa baax. ndax am na ñu bari ñoo xam dañ ko doon na ko mais pourquoi sa anniversaire bi doo ko def chaque deux ans mais yàlla dafa def ni moom dafa fonk ay fansam moom loo wax bañ na ko heure bu génnee kaset woy waalu famille yaayi waali baayu waali maami waali ndax moom um, ñëpp lay woy ba tax na la la 27 bi moom bés bu mu fonk la ci ci ci live am Mm. répétition yi tar na de. yi moom metti na lool. dégg naa tey 5 heures du matin nga tëdd. 22 heures la ñuy commencé répéter ba cinq heures du matin ñun ñëpp fa la ñuy nekk pour bëgg rek bëggeel fans yi wan ne la mu parce que xale la xale day def xale mu boo ci tolloo def ko bu jeexee rek après nga defi leneen mais fii ñu toll nii moom la 27 bu ci yàlla defee jàmm dinañ gis ay surprise dinañ gis ay woy yu bees. dinañ gis ay bagages yoo xam ne daal macha allah ku ko déglu boo ñëwee foofu grand théâtre bu soobee yàlla di nga xam ne fii ñuy liggéey nañ. nañu nañu képp ku ñëw def taloo buy ñibbi du yóbbaale <laughs> li nga xamante ni mooy taloo waaye rek ngeen ñu nar mais dëgg la parce que man heure bu grand théâtre tase su may wàcc di ñibbi ay dammitu talon yu bari laay seen ci ci ci. <laughs> si si suuf <laughs> bu laay bëgg demul saa yu may ñibbi damay séen ay damnitu coquette genn wàllu prix gu garafaas yu des. maanaam bu laay wàllu gàtt bu xale ak xale yi. Ah, est que xam ngeen yi ngeen di def nga xam dëgg yàlla bokkut kon nag bokk na ci tooñ. léegi nag gis nga la 27 di ngay gis ku fi bàyyi tësanam. loolu leer na ma. tëstan moom dina des grand théâtre ndax li ñu nar lépp ak. li moom kuy ñëw moom na nga wut ay kawas yoo xam ni. Mm. na nga tegle quinze kawas. def ci man la ci mantelaton wala nga fuddan ko bu mu dëgër. def ci daakaande ak gom nga xam ni boo nee boo bu bu nee taxi loof rek nga mel ni fit. <laughs> bu nee xale yi nga mel ni nga gën a gaaw taxi man bi loolu daal laa leen digal. <laughs> acca moo ngi noonu loolu la fi Lamine daan bàyyi euh, incha allah ma jili mbay mooy Ibrahima le 27 incha allah du yomb mais nag ñu ñëw tuuti rek ci fi nga xamante ni mooy liggéey bi parce que nag li ngeen di def dara gënu koo neex parce que tey jii bu ñu demee ba xam benn artiste ambiance dëgg bi yéen a ko yore. Mm-hmm. bu ñu demee ba li ñuy def neex leen ñu xam rythme Sénégal li nga xamante ni rythme culture sénégalaise. ci yéen la tàmbalee alors yéen est-ce que par exemple mën mën nañoo xaar ci yéen ay yeneen futur Doudou Ndiaye Coumba Rose ba jéggi sax la mu defoon. waaw yàlla dogal na mooy waral ni saa ne rek may wax sama mbokku artistes yi muy kat bi di fecckat bi di waykat bi nit ki lépp looy def rek da cee war a booleeg ngëm man tey barke Serigne Baara Mbacke ki dàq tëgg senegal bu taxawoon sama kanam lijjantiwuma ko. dégg nga man kii fii dàq tëgg bu taxawoon sama kanam di tëgg sama bopp rek laa gëm am naa. yow mën ngaa jàpp ne yaa fi dàq tëgg. non am na ñu ma dàq tëgg fop mais dama ni la man am naa nag ay idole ñoo ñoo xam ne nag moom depuis bi may xale ba léegi ci wàllum tëgg sabar samay samay idole la ku ci mel ni sama mag. xam nga abi moo ma jàngal tëgg sabar. ndeysaan Habib Mbengue mu sëñ Babacar. Mm. moo ma jàngal tëgg sabar. mais ku ci mel ni Mour Kumba Mbengue sama mag. Mm-hmm. moom sama idole la ci tëgg. ku ci mel ni Cooma Sayar Mbaay bi may xale ba tey sama idole la waaw moom dama ko bëgg moom it boo ko nee xale yi koo ci gën a bëgg mu ne la Lamine Naar ndax bi ma nekkee xale dama ko daan tëggale ñépp nag artistes yi yëpp samay samay samay. idole lañ mais ñaar ñooñu dama leen bëgg daal ci nit ku ne daal am nga ku lay daaneel ci tëgg man ñoom ñaar ñoo may daaneel ci tëgg Mbaye Dieye Faye chaque jour damay wax naan tey fii senegal nit wax sa mbaaxu waay du wàññi sa mbaax dara Mbaye Dieye boo gisee lu tax man naw ko lenn rek laa ko nawe personnalité gi ne ci moom wax dëgg yàlla. ndax tey xam nga bu njëkk artiste fonkoon na tëggkatam mais tey tëggkat bu demee ba am civilisation bu nekk ci moom di tëgg di sol costume di tëgg ba am sañ-sañu sa waykat di way nga jël micro di wax tey bu ñu demee ba am loolu Mbaye Dieye Faye la mais tey artistes yi comme li may wax rek gis nga sa artiste da nga koy teg ci condition yu baax yu leer yu yu riche bokku waaw xam nga am sa artiste rek yam ak moom ci kaw scène bi boo leen tëggee pare fay ko kase mu ñibbi loolu man nawloo man na artiste buy def loolu duma la nawloo bari na fi artistes yi dañu war a waykat yi dañu war a fonk seeni musiciens yi nga xam ne ab yow taxawal ci kaw scène bi rek di way di yuuxu ba xam kenn dina la faale mais tey waali xam xale la ñaata musicien lam am ëpp na vingt deux musiciens imaginel ñoom ñëpp ku ci ne nga jënd oto oto jox leen bu tabaski jotee ñi am ñaari jabar ak ñi am benn jabar ku ci ne day yëkkati xar mu mag jox la bu weeru koor jotee mu yëkkati xaalis bu bari woo usmaan Camara sunu batteur bi ne ko jëlal xaalis bi nga séddale musicien yëpp Youssou Ndour boo xoolee ay musiciens doo doo xool ay musiciens Youssou Ndour mu di leen yërëm doo ci yërëm kenn ak ñeneen ak ñeneen. mais ñi nga fi lim ce que du ñooñu dañ koo mën moo tax. mais loo mënul. loo jéemul doo ko mën. d'accord ah nga gis ne ñoom jéemuñu. dañ dañu war a nit ñi ñi nga xam ne dañu nekk ci ci euh, musique bi laa la wax am ay musiciens yu baax yoo xam ne yóbbu woo fi kenn fii bu njëkk musicien boo fi yóbbu mu daw. musicien boo mësaan yóbbu Europe mu daw. mais Europe amatul dara léegi. mais gars mais nit ku nekk sa wërsëg. amatul dara mais mën nga dem te yàlla boole laa ku nga dal ci lu am doole mais waali dëkk yi ruche yëpp dañ fay ànd ak moom ñibbi si waat ci jàmm. ko ji loolu laa bëgg nag xasuma kenn waxuma kenn pour nga xam ne moom xale la. mais moom xale la ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi am orchestre ñu ñu daal. fonk seen musicien roy ci yi comme ni mu def ay musicien bi ñun kër Waly amuñu fa sens interdit barke sëñ Baara duñ fa taxawaalu nag parce que ay kilifa lañ ñàkkunu fayda am nañ fulla ñu ngi toog suñu kër defar suñu kër ba mu baax ku fa dugg respecté ñu mais nag musique musicien boo ko amee da ko war a cëral da nga ko war a jox cër muy fecckat ba ba ci bagage bi yenu say bagage sax da nga ko war a fonk da nga ko war a jox cër waa li dégg lu ma la buy joxee xaru tabaski amul bagage yi amul technicien amul dara ay technicien am sax da leen jëndal oto ndax benn jour dafa ñëw répétition ñëw fekk ñun ñëpp man man yàgg naa moto yàgg naa moto bu bu yàgg musiciens yi bu ñu ñëwee ñun ñëpp ñii di gaare taxi mu taxaw ci pied bi xool musiciens yi rek dem ñu mu usee pare ne barke Seera Fall samay musiciens dootuma gaare oto mukk te ñoom du ñu gaare oto comme man. xam nga loolu ku am xol bu rafet moo koy def ñuy dem itali toog ci aéroport bi yaayam na ma nii bilaay sama doom ji am kinne ne ma barke Seydina Mohamed même bu waale amul woon lu mu leen jëndalee ay oto ma jaay li ma am lépp jox ko mu jënd leen ay oto yaay moom ma wax lii Italie te papaam aussi yàqu ci dara ndax lépp lu muy def tamit day waxtaan ak papaam moo tax mu bëgg musiciens yi ndaw yi nga xam ni dañu commencé way te nekk xale te seen papa yi di way nañu fonk seeni i baay respecté seen i papa te xam ni lépp ci baay la nañu fonk seen baay daal ndax bu bu bu la succès yóbbu ba nga jël sa baay bëgg ko def moroom nañu xool ci waali mi nga xam ni Thione Seck mooy baayam bu ko neexoon ne ah àgg naa fi ma war a àgg mais ba léegi dafa am kilifa lu muy def day wax ak baayam wax ak ay nitam man daal li ma bëgg mooy nañu fonk musiciens yi. maa ngi wax ci turu musiciens yi Sénégal yëpp laa wax nañ leen jox cër xam ñooy kanta xam ni ginnaaw yàlla bu dul ñoom. Mhm. yow boo taxawee di way du saf dara. kenn du la leen fonk daal. jërëjëf kon mu doon lu am solo loo xamante ni moom Lamine Nar moo ko fi bàyyi ci seen émission bii di cloche nag Lamine bëgg nañoo waxtaan ci à l'avenir euh, incha allah li nga xamante ni mooy carrière bi euh, lan ak lan ak fan fan nga ko bëgg yóbbu parce que nag euh, sunu yaay ji nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi koy jooy ba tey te noppeeguñu dañoo gisoon nga defar ko fi single pour wax anniversaire am pour waajal anniversaire boo xamante ni da nga ko ko doon waaj a defaral ñu bëggoon xam loolu da ko defoon juste pour sunu yaay wala da nga koo def parce que am na def waaw xam nga Ndeye Marie yàlla dafa dogal mu nekkoon prince art Youssou Ndour bërki démb rek yàggul biñ nekkee Hollande dañu waxtaan ma ne ko dama bëgg a defal sama yaay hommage mu ne ma sa yaay sama lépp la woon te bi ma manqué xam naa ni manqué na ma Mbaye Dieye fa woon mu ne ma yàlla dogal na ni mais moom buuba nduur moo nekkoon xaritam moom bu soxlawaan sama yaay sax buuba mooy woo sama yaay. ne ko wool bu ko woowee rek nday mari bu tëddee dina la buuba bu ko woowee sax. danaan bërët jug. même bu mu daan jiyee sax du ko yëg buuba danaan mais ana nday mari dama daan mu koy woon na ko jëlal taxi léegi nga ñëw mu ne ma nag comme buuba moo yoroon sa lépp yaay delloowaat naa buuba nduur lépp. waxtaanal ak moom lépp lu mu décider rek nga pare defal sa yaay hommage mais comme bii jàll na déwén bu soobee Serigne Touba incha allah bu neexee yàlla bu ci yàlla àndee fekk ñu am jot kenn manqué wul dinaa ci waxtaan ak buuba ma defal sama yaay hommage parce que bi mu làqoog léegi def na huit ans mosuma def hommage ñëpp may wax nag doo defal sa yaay mais loo gis lu ne rek dafa am temps su ma demee waxtaan ak buuba lu ma ci wax rek ci ñi koy njëkk a Sénégal set mooy pay incha allah. sunu télé la mais ba tey dafa xaw a des tuuti cela veut dire da nga ko defaloon jaar koy jagleel ab way. léegi dañoo bëggoon a xam way boobu nga ko defaral loo xam ne dafa nekk sa xel la à booy def carrière mu def mu nekk ci way ak tëgg wala danga bëggoon a yem rek ci li nga xamante ni mooy tëgg. waa xam nga olof Ndiaye dafa ne doomu mbottu ndox rey ko kuy sa yaay nday mari njaay gawlo kuy sa maam may sa njaay gawlo boo wayee ndaanaan nga soo wayul ndaanaan nga man tama ñaari boor laa fu ma neex tëggee yëm góor suma maam bu ma neexee tëgg sabar bàlla naaree sama maam bu ma neexee tëgg sabar su ma neexee way mais yàlla dafa def ni loolu man maa toog rek parce que moom ndeysaan dañ daan toog bu ma nekkee sama néeg di wayantu nii day jékki-jékki rek sëpp dama yow amoo benn ful la ni nga mënee way doo ñëw ñu def benn morceau mooy way bi mu naan sa bi yaa ko moom mu ne ma jëlal morceau bi nga reprendre ko ñu def ko man ak yow mais pare nag bi mu génnee àdduna affaire bi ñëw ci man ni naturel rek ma ni xaar ma defaral sama yaay benn single mais fii ak ci kanam incha allah parce que li ci kanam rawuli bët carrière bi moom dañ koy topp dañ koy topp ba mu sës mais daal ñu ngi ñu ngi ci daal ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ciy waajal waaw pour bëggeel fan si yëpp. ci kàttanu yàlla amul bon problème te ñu ngi koy xaar incha allah euh, buñ la doon laaj nag Lamine loo xamante ni saa boo ko fàttalee ci sa sa euh, sa yaram daw lan lay doon. waaw bari na. waaye limal ñu ci rek ñaar ba ñett ndax ñun duñ doyal ci moom. saa yi ma ko fàttali ko sama yaram daw mu metti mooy dafa nekk yaay joo xam ni ba euh, saa yu ma duggee sama néeg sax bu ma amee lu bees moom lay xalaat loolu day daw sama yaram parce moom saa yi ma tukkee saa yi ma ñëwee fekk mu changé sama nekk te duma ko yónnee xaalis na ko jëndal wala defal damay tijji sama néeg rek gis lépp lu bees tax loolu saa yi bi ma ko xalaatee rek sama yaram daw wax dëgg yàlla. ndeysaan ah, gis ngeen kon nag mu nekk lu am solo dama ko fee bañ a jooyloo nag moo tax nañ ko yemale foofu ci kàttanu yàlla ah, mu nekk nag lu am solo loo xamante ni kenn ku nekk da koy ñaan yàlla defal ko ko ndokk bi ñu amee ay waay jur yu ñuy tiitaroo ah, ndax wax dëgg yàlla moom mii def na fi woy boo xamante ni dootul fay te lépp a baax kontaan nañu nag tey ñëw fi wax dëgg yàlla mu nekk lu rafet nag waaye man sama mag yenn saa dañ lay tooñ waaw ah, loolu tooñ googu nag laa bëgg nga leeralal ma ko tuuti <laughs> tooñ gi mooy mhm. fan yi la ñu la fa doon tooñ ak Mame Bassine Thiam mhm. euh, à l'avenir mën nañoo xam ba xam ñaareel day am est bëgg nga jabaru star non xam nga yàlla nag bu la joxee soxna su baax soxna soo xam ni daf la féete comme yaay mooy li may wax saa su ne rek dama naan man sama jabar jikko ji ma gis si moom ba takk ko bu ma ko gisoon ci beneen jigéen ju mel noonu mën naa ko takk billaay wallaay tàllaa ndax ñun ku ne xam ne suñu liggéey dafa metti ku nekk moo ñu bëgg ku nekk moo ñuy topp yàlla dogal ni fu ne lañuy tukki fu ne la dem ci àddina ñun suñu jabar amaana lëndi walla jeudi rek lañuy tëddandoo ay même heure ay dix heures 22h 23h mais bu weesoo loolu chaque jour bu ñuy wax allahu ak si la ñuy dugg suñu kër nga am jabar ju mel noonu nag mu lay muñal mel na mu war a mel baax uufal la sa njaboot kenn mësul dégg sa jabar ñu ne jabaru Lamine Naar lii wala laa kon boobu jabar boo ko amee da nga koy sagal da ngay toog ñun ñëpp ay góor lañ nag kenn mënul ne du ma doo takk ñaareel wala doo takk ñeenteel. Mm. mais jikko ji ma gis si sama jabar ji. boo ko gisaatee ci keneen gisoon ci keneen koo xam ne mel na ni comme jikko ji bu yàlla dogalee mën naa la takk ma takk la mais fi mu ne ni soon nga gis ko ci keneen. te neex ko moom. <laughs> ah da koy neex ba war. waaw da koy <laughs> neex <laughs> kon na pour mu takk jabar faaw mu neex aawoo. Ah, ah ndax wax dëgg yàlla dafa nekk ay. Oh, dafa soxna soo xam ni. léegi nekkatul jabar ko sœur la. ndax suma sœur la daal. man ñoo bokk ndey ndax sama yaay. mu ngi ci dëgg ñu ngi ci naka sudul noonu. mais yàlla mi ñu tiim xam na ni barke Alaaji Baara. dafa ni ma Lamine Naar ma ko ah. boo ko jàppee mooy sa jabar. boo ko bàyyee mooy sa jabar. te man mii di sa ndey moom laa bëgg su ma deeyee moom laa bëgg su ma dundee moom laa bëgg kon kooku nan la war a def. xanaa nekk ca la ko yaay jox. Ah, kon nag dëgg neexul. c'est le géwël dëgg neexul c'est le géwël. Adja waaw waaw waaw mi sama xel parce que chaque jour ay fan sam dañ ma koy wax moom laa gis mu génn àdduna ay nit di ma teral ndax moom damay toog sax. nit yëkkati xaalis bu bari ne ma dama waroon jox sa yaay ba ci Serigne Afia Mbacke avant muy laaxu téléphone la ma jot ne ma yaa ngi caaxaande Mouhamad Lamine sa yaay dama ko mayoon fii terrain ñëwal nga jël terrain bi tabax ko. ndeysaan ndeysaan moom daal dama koy ñaanal parce que doomu aadama yu bari ñu ngi may teral. Mbacke Ndeye mhm. mhm. yàlla. mooy sama sëriñ. ak sëriñ fàllu Mbacke ak El Hadj Baara mi ma jébbalu. mais sama yaay ji daal. mooy sama sëriñ. leer na nañ ñaanal suma papa yu si gudd fan ak wér. Mhm. yàlla bàyyi ko fi. Euh, ginnaaw nag ki nga xamante ni mooy sunu yaay def na fi lu rafet ba yàlla def mu jël ko te jël bu rafet la doon lan la ñu mën a xaar parce que tey jii nag buñ la xamee yàlla ak sunu yaay ji ya tax. Mhm. mais lan la ñu mën a xaar ci Lamine Nar mu def ko ba bis bu fi jógee yàlla na yéex mhm. euh, ay doomam mën a taxaw di jiital. waaw loolu commencé na sax macha doom Medina. ñoo fay tëgg sabari sama sama benn doomam fii. Mamigo mhm. mooy sama taaw day tëgg asalem. ak moom Lamine Ndiaye. Mhm. ñoo fay tëgg. Mhm. kon tey. moom ci tànk yi ma rek laay nekk. ba mu ngi nii tey moom fi ma tegoon. fa nekk. kon yàlla na yéex tey mu fi jógee samay doom. loolu rek la ñuy xool danaan ah sama papa de fii la nekkoon. kon ñun tamit duñ wàcc raay bi. aca mi ngi noonu wax dëgg yàlla liñ naan bu diinay bàyyi foore doom day doon kon nag yàlla yàlla defal jàmm kolos jeex na lan ngay tàggoo waaw di di di gërëm ñëpp mhm. di gërëm suma famille mhm. suma magu yaay bi nga xam ni moo fi nekk mhm. muy ajaratu njeng njaay ma koy ñaanal yàlla xa yàlla bàyyi ko fi guddal fanam ndax yaay ju mat yaay la sama yaay mënoon na laaxu mu ñuy xoolee benn bët suukar sax da koy jënd di ko indi sama kër. ak café xorom. Mm-hmm. bëggul lu ma naxari. Mm-hmm. ak maam Awa Ndiaye. sama magu yaay la tamit. Mm-hmm. ak suma benn sœur bu baax boo xam ne daf ma bëgg. muy jàbba. moom mi ngi dëkk fii Sëriñ Issa yaay Maajoor. moom maa koy ñaanal sunu borom defal ko jàmm. di gërëm cité bi ma dëkk nii. waaw di ñaanal borom cité bi yàlla na ko suñu borom xaaree àjjana. di gërëm maire aadama Gueye mi nga xam ne moo ma yaayoo fii. di siyaar aussi yaayu Marème ak Fallou Diagne sama international bi nga xam ni ñoo taxaloo di gërëm suma soxna di nuyu yaayam di nuyu sama doom yëpp nag di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fii nuyu suma frère Ablaye Dieng bëgg naa daal Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg Sénégal set ca kaw ca kanam yàlla leen suñu borom defal jàmm nuyu naa Sénégal gépp nag di gërëm samay xarit samay doomu ndey Talla Mbeng mi nga xam ne daf maa bëgg séeri Safi. madame Seck. Mhm. soxna ay dara. maa ngi lay siyaar di la bëggee. Mhm. yàqoo kër gi. Lamine Ndaw séeri Ndey Mati. Mhm. di nuyu ñëpp. di ñaan sunu borom def fi jàmm. Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm. anniversaire bi nag. Mhm. seen anniversaire. waaw na ñëpp ñëw man sama bos le 30 la. le 30 la le 30 avril mooy sama anniversaire. sorewul de sorewul de. ma doo ko def def defaat raxas bi raxas bi nirvana laa koy defee. sa salaam soirée Salam Diallo. jeex na le 20 euh, le 30. Mhm. tombel mardi. waaw Salam laa koy defee fële ci nirvana. jeex na di ci woo samay marraines nag. Mhm. ku ci mel ni Assou Mbaye borom Genève. <laughs> di koy gërëm ak Ndeye ak Ndeye Fatou Ndeye Fatou Ndeye di ko jaale yaayam ji fi jugee barki démb yal na ko suñu borom xaaree àjjana day faatu sama jigéen sama xarit yaay Mouhamed di gërëm nag sama famille jabar ñoom ñëpp ak sama goro bu leen dagg lii parce que li ma dafa am solo de <laughs> ndax samay goro dañ ma bëgg dañ ma jàppale waaw kay goro daf bëgg daf ma jàppale mm-hmm. di gërëm nag nag yaayu marem ji mm-hmm. yaayu marem mm-hmm. ak Fallou Diagne international ak Ndeye Maysa di gërëm daal. Adja Mbaye mi nga xam ne sama xaritu xol la. Uh-huh. gërëm naa ñëpp. gërëm naa ñëpp. dégg uh-huh. naa ci ñëpp. Sagar Mbaye tey la anniversaire am. waaw Sagar Mbaye tey non Sagar moom sama jigéen la tey la anniversaire am. moom anniversaire am du yomb. ndax dafa baax. ndeysaan nuyu nañ ko borom Belgique. Séeri Koura Thiam bëgg naa bëgg naa ci ñëpp daal yal na leen suñu borom defal jàmm nuyu naa Sénégal France <laughs> Belgique Hollande Amérique bëggee aca moo ngi noonu tàggu géwél la kontaan nañ bu baax ci moom maa ngi koy sonal en tout cas ça a été un ñu toog ak ñëw wax dëgg yàlla dalal bi neex nañu gis nañ accueil beeg lépp sunu boroom yàlla na la fi yàggal ci barke Serigne Touba. amiin mbir yëpp neex na nag ñu ngi lay ñaanal jàmm di la ko ñaanal di ko ñaanal sa njaboot yëpp. di leen wax nag cloche la woon tey Lamine Nar Gawlo lañ seet si woon avant li nga xamante mooy la 27 am na yu bari yu am solo yoo xamante ni wax na ko ci te xam naa ne bu kàtt si kàttanu yàlla boo leen ko seetaanee di ngeen kontaan li ñu bëggoon rek mooy vous faire plaisir donc yàlla na ànd ak dégg ak topp. nañ ci ñëpp parce que xam nga Wally. <laughs> dafa. dafa dafa am ñoo xam ni dañ ñuy teral ndax Wally Ballago Seck. ndeysaan. ku ci mel ni moom laa ko tuddee loo ci wax. waaw Wally laa ko tuddee. dégg nga Dora. Uh-huh. dafa maa bëgg. ndeysaan di ma defal lu ne. Uh-huh. Uh-huh, bàyyi foofu. non foofu xoolal nee naa ko taj <laughs> jeex na ak laay laay sama. <laughs> dama koy dama koy baat ndax oto bi gaaw pare. wallaay pare oto bi ndax ñun sonn nañu. asa may remercier bu baax nag ci seen création moo génn ci yére bii ma tuddee tey Wally Ballago Seck waaw xam naa naa ko tuutal sax ci anniversaire bi incha allah. kontaan nañ bu baax a baax euh, ci waaw waaw waaw kii moo ci zone création ku ko bëgg rek danga koy fekk fële ci HLM numéro bi nag 77 la 731 66 44 wax dëgg yàlla yu yu dàq yi lay def wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax ci moom di leen jox rendez-vous incha allah ci beneen cloche wala ci beneen màkkaan ci beneen invité wala ci beneen célébrité ci kàttan suñu borom ñu daal di koy waxtaani excellente soirée et bye bye